Assalamualaikum Senegal, Assalamualaikum Senegal. mom day euh, da am rek ben video bu ndaw rek bu ma bëgg def ndax senegal sax kenn du bëgg wax ndax fi ndax fi ñu tollu ku wax de ku nopi wëssin da ngay dégg ay yo xam sax yow da ngay tit bu déggé ay nit diko wax dama doon seetaan léegi Facebook bi di gis ay vidéo maanaam ci mbirum coronavirus bi ak ci mbirum màggal yeeg cérémonie religieuse religieuse yi am na sax ku dem ba wax naan kuy ñëw Touba bul takk masque bul takk gant bul def dara sëriñ bi sëriñ bi aar nañu nangam ak nangam ñun ñëpp a gëm sëñ Touba ñun ñëpp. mais yéen ñi nga xam ne yàlla daa dogal ngeen di wax ci yoonu murit bi moytu leen su ngeen di wax di jël ay engagement yoo xam ne day engagé yoon bi yépp ku ne am nga sa point de vue personnel loolu kenn terewu ko kenn mais bàyyi leen yéen waxtaankat yi wala diiwaankat yi wala jàngkatu xasida yi buñ la talalee micro rek ngay wax au di du mouridisme na ngeen bàyyi loolu kuy wax waxalu la engagé mouridisme dañ ko organiser am xalif am porte parole bàyyi leen ku jug rek di wax naan ñun muriti muriti nangam ñun muriti na murit yëpp na murit yëpp mbir buñ ko organiser ba am porte parole lu xalifa bi war a wax murit yi porte parole bi moy jël kàddu wax mais bay leen di wax à la place du porte parole loolu laa leen di wax pour ngeen xam ko parce que dafa am ñu leen di déglu te dafa bëri ay erreur de communication yu ngeen di def moom ay xale yoo xam ne dañ leen di déglu gëm sëñ Touba topp leen ci loolu di nager ci erreur mbirum coronavirus bi ak mbirum màggal yi. ak mbirum daje yi coronavirus yaa naa rien à voir yaa ak mbirum ngëm coronavirus xàmmewul murit xàmmewul tiijaan xàmmewul jullit xàmmewul chrétien système humanitaire la xam maanaam nit nit nit jëmm ci jëmm lay dugg waaye dugg ci ay baatin ak yooyu murit nak ma leen di fàttali nii booy ci serigne bi da nga naan ko na la sama bop du sa jëmm du sa jëmm nga koy jébbal parce que mosoo leen gis ku jébbalu ci ab serigne serigne bi yew la ne la dang ma sa bop bo ba nopi da ngay juk dem sa yoon ko la ngay jébbale du sa jëmm boy soobu nak ci mbirum yalla fo nga xamé ñaar yi mbirum yalla bi ngay maanaam ruu bi ngay jébbale ak sa yàpp yaram maanaam support cosmique sëriñ bi ay ruu lay sàmm mais sa yàpp yaram nag yaa koy sàmmal sa bopp mosoo leen dégg taalibe bu tilim sëriñ bi dugal la ci duus bi di la sang mosoo leen gis taalibe bu feebar sëriñ bi jël pikiir di la pikiir mosoo leen gis taalibe bu bëñam di metti sëriñ bi dànkal la di la sexal wala ku bëgg xiif sëriñ sa taali sëriñ dugg ci wàññi da maa jébal sa jëmm maa lay sexal ngay lekk jëmm support cosmique la jëmm mooy feebar jëmm mooy màgget jëmm mooy dee ak koo mën a topp ak koo mën a gëm dangay feebar da ngay màgget da ngay dee loolu laa bëgg ñëpp xam ko su ma déggee ay nit di wax yenn wax yi damay tiit parce que dañuy jaawale sëriñ bi mën na def ay exception ci nit ku feebar laa exception ci nit ku feebar mu ñaanal la nga wér walla ci baatin nga gént moo ne defal dàngam nga wér waaye exception nag du règle saa yoo demee Touba fekk fa ñu cancer te am nañu sëriñ saa yoo demee Touba fekk fa ñu jabet te am nañu sëriñ saa yoo gis fa ay meurtre nit yu ñuy rey te am nañu sëriñ fait Touba fa kuy agressé te am nañu sëriñ fait fa def jaliz am fa am te am mais bailin ay waxi aalu bàyyi lu nit di wax rek ngir njariñu askan wi ngeen foog ne day attaqué yoonu murit ba ngeen génne di wax ay seeni waxi dof nit ñi bañuñu sëriñ Touba yéen a def ci seen bopp nit ñi dañoo contre sëñ Touba mais Sénégal sëñ Touba kan moo koy bañ hmm? sëñ Touba kan moo koy bañ yi ngeen di wax nii ay wax yoo xam ne tegul ci ci bopp yow sëriñ bi nga gën a yaakaar bu feebaree day faju di nan ay garab han ah? xamni serigne touba tuba lay tàggat du tàggat jëm jëm ji yaa koy tàggatal sa bop jëm ji day febar ñu ne la coronavirus amna. na na dekk bu melni touba nga nañ ma indil ay preuve ak ay nangam ak nangam ak nangam mais kan moy dem ku ne nga fëgg ci kërëm nan ko xol leen borom photo bi ki mom coronavirus hmm? même loi sax de protection des dates hein ah? amuñu mayul kenn droit ngay publier photo jàmbur ku feebar te neexu ko wala di joxe turam wala turu famille barki seen Touba yéen ñi nag di engagé yoonu murid bi ci ay waxi dof ah mais yéen yéen yéen bàyyi li ngeen di wax yéen ñi naan ay waxi coronavirus yëpp da ngeen nekku rek ci dëkk yi mu am comme ñun ñi nga xam ne ñu ngi fii en Europe nekk en quarantaine barki sëñ Touba Mbacke lépp tëj doo mën a génn doo mën a dem fenn économie bi économie bi ku doon liggéey liggéeyatoo nit ñi di feebar hôpital yi bouché ambulance di romb suba ngoon ah mais sëgum tubaab bii la coronavirus bi jaaxal asamalaak Sénégal nga xam ne on vit en famille. dañoo bëgg ay ma dañoo bëgg ay mosalma dañoo bëgg ay sujjóot ay nuyoo mais lépp loo xam ne rek mën nañ ko def ba moytu jàngoro gii rek war nañ koo mën a def mais di wax ay waxi dof ay kuy ñëw Touba nangam kuy ñëw Touba nangam sëriñ bi aar na ñëpp waaye yow yow sëriñ bi aar na ñëpp te ñamewoo jël sa cent mille francs dem teg ko ci buntu jumaa ji na bàyyi naa kook sëñ bi bàyyi seen wax yooyu murit da ngay da ngay faju ba wër jox nak sa bop sëriñ bi da ngay moytu doo ko jox sa bop sëriñ bi barki sëñ tuba ko xamne ne boo lek bo maré nan da ngay feebar da ngay faatu barki sëriñ tuba mbàkki wa ñun mouride exemple bu wara xew ñun ñoo ci wara jitu wone wane civisme wane bon exemple ni bu jëyee amé màggal lu mu rëy rëy rëy rëy lu mu rëy rëy rëy ziyaar lu mu rëy rëy rëy rëy mais wér moo ko dàq jàmm moo gën màggal jàmm moo gën gàmm ndax ku ko talul doo dem ku wérul taloo màggal ku wérul taloo gàmm ku wérul taloo siyaare ji sëb sëriñ wér mooy lu primordial nit bu wérul talul dara jiyee ji am ñun ñi xam ne am na nga daan gis ay nit ñu ne la am na nga daan gis ay tubaab yoo xam ñu naan la am nañ ko ngay gis ay ambulance di jàmmante subaa ngoon nga gis secteur yëpp daal di tëj foo doon dem du yi ñu ne cinq personnes ñoo am droit ndugg ñu ñii xam nañ ni coronavirus am na ndax ñun ñu ngi suñuy biir kër mënuñoo génn fenn dem fenn mënuñoo liggéey mënuñoo dem fenn ñu ngi suñuy biir kër dem nañ ba def ko léegi luwaa képp koo xam ne jàpp nañ la ngay dox ci mbedd mi dañ lay multu tuba bi jaaxle ñi di dé han ngir bëgg jéyee joju propager wu Sénégal ndax ay magal ak ay gàmmu meex magal ku wérul do ko tal nañu bayyi alu bi nañu bayyi alu bi sëñ tuba ñum yobone guerre mondiale ñaanalu leen rek ne leen dem leen ku ne da nga yor sa pistolet di reyante ngeen gis ku mësa dem guerre mondiale dal sëñ tuba ne moo ma fi indi fi yoro pistolet yoro arme yoro dara nan barki sëñ tuba dañ lay ray dañ lay ray nga dee sëriñ si yëpp bu ñu feebaree ñi ngi dem ay Europe di faju mais lu tax taalibe yi bëgg dugg ci fanatisme bu doy waxuñu kenn na suspendre benn màggal loolu mbirum nguur gi la mais tamit nag nit nag jël ay précaution nag fagaru nag fagaru wan muriti lan mooy fagaru nu ñuy raxasee say loxo ni ngay protégé woo waaye coronavirus daa xàmmee murit wala daa xàmmee Touba loo xam ne day day day dem day dem man fi ma nek il y a même pas deux semaines deux cas lañ doon wax tay yi ñi ngi ci 7000 cas 7000 cas té nenañ du ray xalé waye magum japp dalay ray wala nit ku febar dalay ray nit ko xamne am nga febar bu nekkon ci yow sénégal ku fa wër du ñaan jamm té lepp lo xamne li en cas de force majeure la dëkk buy dox ba guerre am guerre nak likoy indi moy élément extérieur bëgg ñëw dugg sa dëkk par force ñu mobiliser dëkk ba yëpp lii moo raw loolu ndax lii arme biologique la arme biologique la day yàq am réew du moroomu njéeréer yéeg du moroomu sax guerre parce que guerre ñi nekkul sax ci zone de combat bi ñoom mën nañoo dox seeni soxla mais lii day paralyser am économie day paralyser am réew da koy yàq barki Sëriñ Tuubaa day yàq am réew ñu war a jug ñun ñëpp. amul mourid amul tidiane amul khadir amul lay ñun ñëpp wara nek ben bloc xex febar bi bañ ko jot am ñu faj leen te keneen dootu ko am ñuy wax ay waxi dof di alu fi ay aal kenn dañoo gën a gëm ñun waaye da ngaa gis nit ku ne deewul ndax daa jébbalu kullu nafsin zaa'iqatul mawti wala ñu ne mouride duñ diabète wala ñu ne mouride duñ cancer wala ñu ne mouride duñ duñ duñ febar fa ngeen ko mëna mësa gis mais serigne bi roulay tagga du tagga yap yaram mais fanatisme bi ngeen bëgg duggal ci yoonu mouride mouride da ngay nité nek nit di liggéey di wacc di febar di faju di lek di nan, to yor nak sam ngëm nak ngëm sab sëriñ mais kat yi fanatisme bii ngeen bëgg dugal ci yoonu murit bi arrêté leen ko engagement yi ngeen di jël ci yoonu murit yi ça ne concerne que vous wasalaam.